mbokk yi tey laa joxe secret laal dee secret boo xam ne képp koo xamante ni utilisé nga ku la laal day faatu mbaasu faatu dina am gàllankoor bu metti li tax ma koy joxe nag réew mi daa toll foo xam ne senegal dafa bari ndaw ñuy dem ndaw lu amul kaaraange di nga di nga dem barzaq surtout ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu internet nga dugal benn vidéo ay junne nit gis ko nga xeeb loolu. am na bët yoo xam ne lu ñu xas gis day yàqu am na yoo xam ne lu xas commenté day yàqu moo tax tey ma ñëw ak yéen di leen may secret boo xam ne insha allahu taala képp ko ragal dinaa dem barzaq da ngay fexe wut ku la bindal tabbat yadaa 313 ma adad jeesu nga bind ko 313 nga koy bind boo ko bindee 313 ba mat nga wut 111 xobi fofton nga boole ko saafara si xoj ko di ko sangoo guddi ay 3 heures du matin ay 2 heures du matin bu ñëpp tëdd incha allah taala boo ko saxalee douze fois nga sango 12 jours képp ko la laal dina wuy ji barzaq mbaa képp ko la laal dina am métti boo xamante ni ba ma sax dina ko deewaale maa ko maye nag seen bokk seen xale Seydina Alioune la numéro bi 77 la 962 57 18 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Sénégal ak seen médecin traditionnel di Seydina Alioune ñu gën ko xam ci Serigne Mara Cissé ay ci indil leen lépp loo xam ne jëm na ci wàllum néew kàttan waaw wala nga am faiblesse sexuelle daw gaaw daat koy seet dama ni léegi néegu sëy yi kenn xulootul ndax Seydina Alioune muy sëy Serigne Mara nee naa yow mi nga xam da amee hémorroïde nag wala nga bëgg listixaar wala daati jokk ak moom ci dama ni ñëwal gaaw ñu daat leen delloo say 18 ans ñëwal ñu